rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci ab bi ak ay saabaam di ñaanal sëriñ Muntaxa sunu borom yàggal ko fi waaye noonu la ñuy ñaanale sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom sëriñ Soxibu kon euh, télé bi yi nga xam ne moom la ñuy wax As-Samadiyya muy télé bu mucc ayib di télé boo xamante bi sëriñ Abdou Samad Mbacké moom moo ko moom di ñaan suñu borom yàggal ko fi kon nag su ngeen gisee ñu nekk fii nga xamante mooy kër Serigne bu ñu ngi fii ci coquillage bi ci kees gi nga xam ne moom la ñuy woowee coquillage ngeen gis oto daamar bii sama ginnaaw dafa am wàccaaylu sëriñ bi di waaj a def muy ngan goo xamante ne bii mi ngi koy def fi nga xamante moom lañuy wax ñuy wax Touba Ndiagéen sëñ bi mi ngi ci wàccaay ngir war a jógee Touba tey ci ci talaata ji incha allah fas yéene fanaan ni Touba Ndiagéen ku fay fekk ji mooy doomam sëriñ Abo Mbakke ak waa Njaageen gépp nga xam ne sëñ bi moom fas yéene jóge tey jii ci Touba fanaan ni Njaageen lii nag mooy tàmbali bi nga xamante bi moom lañ leen bëgg a indil xam naa ci kanam bu sëñ bi génnee rek ngeen gis ko ngeen xam ne départ bi euh, dina am léegi ci kanam bu soobee yàlla. sëñ baa ngi nii di waaj a euh, jógee Touba ci kër sëriñ Sohaibou gi fas yéene dem Njaageen. kon gis ngeen ko suñ baa ngi nii ci oto bi kon ñu ngi fas yéenee eh, daal eh, jóg nag jubali dëkk bi nga xam ne moom la ñuy wax njaageen di ñaan suñu boroom teg ñu ci yoonu jàmm salaahi bi islaahin wa abwin bila zulmi me الغيب bi mi ngi door ak noonu Kër Daam foofu la jàdde ngir fa yéene jaar ci yoon wi nga xamante bi mooy yoonu njaageen gu mag buñ fa jógee nag daal di door àgg nag ci njaageen gu ndaw ndax ñu bàyyi xel na njaageen gu mag googu moo meññ njaageen gu ndaw kon gis nga ko sëñ bi mi ngi door agsi nii bi ñu jógee ñu ngi jël APS bi jaare ko Bambey romb baa mbay jaar fi nga xamante bi mooy Kër Seer jógee Kër Seer jaar Kër Daam ak si nii ñu ngi ñuy jàdd tegu ci yoon wi nga xamante bi moom la ñuy wax njaageen jooreel xam naa ne quelques euh, maanaam minutes rek incha allah dinañ àgg ci dëkk bu tedd boobu nga xam ne bi mooy Touba njaageen mbokk yi ñu ngi njaageen gi nga xamante bi moom la ñu wax njaageen gu mag euh, moom moom meññ njaageen gu ndaw gee ñu jëm nga xam ne kon sëñ mi ngi door agsi yi nga xam ne mooy njaageen gu mag xam naa incha allah ñi ngi fa yéene jëm njaageen gu ndaw fii nag taarix la ndax euh, Seexul Xadim Sëriñ Tuubaa daana ànd ak euh, waajur sëriñ Mamour Anta daan ñëw ci dëkk bi di fi xenc mbokk kon nag ñu xam ne fii taarix la moom la ñuy wax njaage Touba njaageen euh, gu mag incha allah ñi ngi fas yéene dem ci njaageen gu ndaw kon mbokk yi xam naa ci kanam sëñ baa ngi nii door a agsi fi nga xam ne mooy tuubaa njaageen gu mag جزائي على المولى تعالى تكرما بلادي سوي تسليم بالقلم زمامي بأيدي جندي مولك الهدى لدى غربتي من خير يهمني ولسان قلبي ما لساني لدى الخدم لو قنع كلي بما دير لي هدى ولم ينهني دنيا وأخرى التي صدم يوم لي الرضوان من كل جاه ci sëñ bi agsi na léegi bi ñu jógee Touba ak léegi daanaka booy xool lépp mu ngi toll ci euh, quarante cinq minutes noo jaar Apias wàcc Bambey jaar Kër Seer jaar Kër Daam jóge fa nag jaar Njaagin gu mag Njaagin gu mag googu sëñ bi escale foofu moo jur Njaagin gii tey sëñ bi agsi léegi moom la ñu woowee Njaagin gu mag fii moom la ñuy wax Njaagin Jooreel kon ñu sant yàlla ci sëñ bi agsi gi mu agsi euh, ñu fas yéene tàmbali ngan gi nag xam naa ne sëñ bi nag coono yi daa bari xam naa ne nit ñi moom fees na dell dëkk bi waaye ñi ngi ñaan yàlla rek ñu euh, fekk ko ak tal ko rek mel na ni dina dëkk bi fees na dell sëñ bi moom liggéeyal sëñ Tuubaa donc ko tax jóg ndax coono yi metti na lool waaye nag lépp rek bëgg a liggéeyal maamam ji rek kon nag dëkk baa ngi nii muy jaageen njooreel muy dëkk boo xamante ni dëkku la xam naa bu subaa sax dinañ ci andi ay programme yu bëree bëri bëri incha allah waaye yawmul ridwaan min kulli janibin wa ma amani shay'un yuaddi ila nadam salayi bi fadlillahi sillawi wal qalam kon salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi As-Samadiyya TV ñu ngi fii ci Touba Ndiagéen sëriñ bi agsi na ci jàmm taalibe yëpp kontaan nañ bi coono yi bari na lool teraanga yii sëñ Basiru mii moo ko fi indi xam naa ne dinañ ko jox mu sànni ci ay kàddoom ndax moom lu baax rek ku ñor. te euh, sëñ bi njaageen gépp dañ laa bëgg ñoom kafewun euh, la maanaam li ñuy wax gëm dañ caa àgg ak yow ba jeexal takk takk takk takk bis bi ñu xamee ne yaa ngi waaj a ñëw kenn ku nekk kenn lekkatut kenn añatut daaw ba ma la ko xëy naa picc yi sax ñu ngi doon xaar picc yi njanaaw yi sax ñu ngi doon toog di xaar sëñ bi waaw kon nag jëmm ji lu baax rek ko ñor kon xam naa ne ma jox ko mu sànni ci ay kàddoom. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di leen sant di ñaan yàlla suñu boroom nga yàgg fi lool te ànd ak biir ci barke Soxna Jaara taraanga yi comme ni ko sëriñ Mari waxee rek waa fédération daayira Maam Jaara Touba Kër di Fossé ak mboolem daayira yi àndal ak waa Touba Ndiagéen gépp ñoo ko defar ngir jàppale ko suñ mbokk yi ci bis bi ak it def mbégte ak bëgg la lool nag ak euh, sopp la lool di ñaan yàlla nga yàgg fi lool te ànd ak wér bëgg geeg sopp gi lépp ni nga bëgg sëñ Tuubaa sopp ko noonu lañ la bëgg soppe nañ tey ñaan nga yàgg fi lool nag te ànd ak wér tey sàkku yi nga ñaanal nu ñaanal mbooloo mi ndax suñ yéene ëppan na lii di sant sëñ Abo mi bu baax ak mbooleem sëñ Malick ñi fi nekk ñëpp rek mbooloo mi ma àndal nag maa ngi sàkku nga ñaanal leen ñu ànd ak ak yokkute ak ak wér ak gën a gëm sëñ Tuubaa di ko liggéeyal lii rek mooy suñ yitte man nag damaa ragal ak ñàkk te daa mel ni fi mu damaa xaw a doy waar lool di sàkku nga ñaanal ma bisab tey bii daal ma dox wi dootuma ñàkk benn yoon loolu daal mooy sama yitte ci yow te man nga ko nag mbàkke ñu ngi mhm. naa ko sëñ Abdoulaye dafa ñëw. Mhm. lu yëpp xam naa ko lu wër naa ko mhm. xam mhm. a yéen a jiite a

ci misaal nee na bu doon ab xare daal ñoo koy daan nee na ak ñëwam nag yàgg na ca jamono suñu ablaat ànd na fa ak moom ba tey ñëw fi kon ku xam dëkk bi la kon nag nee na ñu dalal suñu xel bu baax a baax a baax nee na ki ngeen di defal moom am nag pay muy Sëriñ Tuubaa te moom de jaanam wàcc na ndax ku fi mat a liggéey liggéeyal na ko kon nag ñu sant yàlla ci ñëw gi muy ñëw ndax donte jomm nañu sax waaye ñu sant yàlla baax a baax nee nag sëñ aboo mii nga xamante ne bii mooy euh, euh, ñenn ci leeram euh, mi mi ngi koy sant bu baax ak it di wax ñu ñu ñu topp ci ginnaawam ndax lu ngeen ko defal rek moom ngeen ko defal kër gi mu wuute wuute ak yenn ci daaraam yi kon ci daara yi la bokk rek muy Touba Ndiagéen gi kon nekkul ne maanaam bii mooy maanaam première ñoom kon yàgg na fee ñëw xam ne dëkk bi baax baax te ci taalib rek la ñu xam. kon nag loolu sant yàlla la baax a baax a baax Mbacke kon jërëjëf coono yi metti na lool dëkk bépp kontaan ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di ñaan sunu borom euh, def nga yàgg fi bu mujj doon kimtaan ñu la ko ñaan baax a baax a baax yaa na ko suñu borom defal kon xanaa ñu taaju tàll loxo yi rek waaw ñi xamante bi ñooy jigéen ñi soxna yi ñoom ñëpp ñu ngi ci biti moom yewe mooy mooy seenu yeew ñoom ñëpp rek bu bokki jullit yi bokki taalibe yi ah, lii nag mooy ngan gi nga xamante ni bi sëriñ Seex euh, Sey moom sëriñ Souhaïbou gane si na ko fii ci Touba Ndiagéne Joreel gis ngeen ni ko soxna yi teeroo ah, ak ni ñu toogee ak ni ñu yaroo ak ni ñu amee ak dal sëriñ bi ñu ngi ci sant bu baax a baax a baax a baax dinañ sàkku ci ñoom itam yàlla def ci ñoom barke bu baax a baax a baax ndax lii euh, kowe na njort lool ah, euh, taw feexe ne lool it wax dëgg yàlla الذي كيده ودار وما أمني te yokki xéwalam noo ngi koy ñaan bu baax a baax ah di ko sàkku ci moom itam mu jokk ñaanal dëkk bi ak li wër dëkk bi ak eh, bokki jullit yëpp yàlla yokk ci ñoom xéwal yokku ci ñoom ngëneel ñu ngi koy sàkku bu baax a baax ci moom. te am nañ yaakaar ci ne dana ko ñaan bu ko ñaanee maamam ji maam dina na ko ko may kon yàlla na ko yàlla def. ku ci nekk mu xool la bëtam xool la bëtub yërmande xool la bëtub xéwal boo xool la bët boo xamante ne bii ah moom la Serigne Touba daan xool taalibe yi kooku am nañ ci yaakaar lool. kon sëriñ bi ah, soxna yaa ngoog dëkk baa ngoog gox baa ngoog tund waa ngoog lépp a ngoog ah, ñaanal ci sa maam ja ci ci sa wayjur wi mu ñaan ca wayjuram mu ñaan ca wayjuram ah, di sëriñ Touba mu dotti fi wàmmee ngëneel boo ko ñaanee suñu borom dana ko def ndax sikkuun ne sa xol sedd na te wóor na néewtam nu suñu xol sedd na ndax lii lu am solo la loolu lu nu lu la te loo xamante bii lu nu darajaal la lu nu koweel la ndax kat lu bëgg ko taxu ko am ko bëgg ko taxu ko am de yàlla moo koy cërale nit bëgg a liggéeyal sëñ tubaa na tax ta liggéeyal sëñ tubaa sëñ yi bëgg nga liggéeyal ko rek mu liggéey mu liggéey loola kon ndokk bi nu biir sëñ tubaa bëggee nu liggéeyal ko nu di ko liggéeyal moo mu dolli ko ay xewal bu baax a baax kon ah kàddu yi nag lu ci dëng rek noo koy jéggulu ngir yàlla ak yonente bi jëmmi sëriñ tubaa di ko jéggulu ñëpp xerti gi rek ak ak am gi yéene ak xol bu sedd rek xam nga loolu lépp bu dajee ci doomu aadama la muy wax sax lépp du ko mën a xam kon noo ngi ñaan ci subhaanahu wa taala moo def fi xewal do do kon sëriñ bi ah nu tàllal nga nga nga defe ñaan. tàllal leen loxo yi sëriñ bi ñaanal leen tàllal leen loxo yi amiin amiin fas ci leen ci lu bëgg lépp xaj na ci de waaw fas leen ci lu bëgg rek lépp xaj na ci amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin jërëjëf. la